Daouda seen xarit kër Diop Thialwer moo leen di nuyu fii ci musiti TV la chaîne mbokki Sénégal maa ngi leen di ñaanal jàmm ci koor gi di ñaan lépp lu ci jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu képp ku ci nekk ci ay jafe-jafe yal na la ca yàlla génne mbokki Sénégal ñoo ngi ci koor di ñaan ci yàlla yal na yàlla def jàmm ci réew mi te ñëpp bokk ko yal na yàlla delloo nit ñi ci seen sago ak seen xel euh, mbokki téléspectateurs yi fii ci Mourchid TV la chaîne des valeurs waxtu wi dafa soppeeku tuuti ndax koor gi moo tax waxtu wi ñu daan def léegi bi xaw a gën a teel euh, su ko defee rek ñuy nuyu ñi nga xam ni ñoo sopp Mourchid TV la chaîne des di ko seetaan rawatina suñuy xarit ak suñuy soppe euh, rawatina ñi nekk ci internet bi waaye ak ñu ñuy déglu saa yu nekk euh, xam naa danañ ci tudd rek professeur Boubacar wante euh, dinañ ci tudd Marcel Diène jàmm gën suñu wëllëree sëñ Gora Seye ñu ngi koy nuyu bu Thiaroye Azir waaye di nuyu mboolem ñi nga xam ne moom la ñu bokkal quartier di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi taxaw Mourchid TV di nuyu suñuy partenaire leen ñaan ñu gën a rek jàpp ci liggéey bi ndax taxawaay bi euh, Mourchid TV mooy seen chaîne euh, su ko defee rek euh, seen émission Call Weer wala dellu siwaat ak yéen waxtaan ak yéen ni ko baaxoo di def rek cax leen jox leen ay laaj wante ci kanam tuuti rek suñu léebee ba noppi euh, ubbi téléphone bi ñu war a jokkoo incha allah kon yéen a ngi jàkkaarloog ñun koorug jàmm su ko defee mbokk yi caxu tey wi dafay dellu ci baati wolof yu am solo waaye aw cax la nag ndundu war ci ndee ndee war ci ndundu loolu mooy caxu tey wi ndundu war ci ndee ndee war ci dund loolu mooy caxu tey wi ñaareelu laaj bi ñaareelu baat bi baat bu ñuy wax sa xalaat la waaye du ab laaj waaye wax ju am solo la lim mu wund ku ci xam dara rek mu wax ñu ko mooy wolof daf naan picc mi nekk ci loxo xale bi su reetaanee picc mi ñu teg ci taal bi booba xamul boppam maanaam picc mi nekk ci loxo xale bi warul reetaan picc ma ñu suqi ba teg ko ca taal ba ndeysaan muy wax ju rëy euh, su ko defee may laaj beneen baat bu ñu wax xoddiku baatu xoddiku lan la firi rek laa laaj waxuma nag ca ba nga lakkaleeku dama ne luy xoddiku rek laa laaj su ko defee euh, ci tubaab am na baat bu tubaab di wax laa sim laa sim nan la tudd ci wolof xam naa ne xale yu bari xamuñu ko su ko defee ñu jox leen suñu numéro euh, ngeen téye ko ba ñu ubbi téléphone yi 88 628 66 92 88 628 66 92. mbokk yi comme ni ñu ko baaxoo def rek émission Càllu Weer day faral di wax ci ay baati olof di ko faram-fàcce waaye di faral méngale baat yi ak li xew ci àdduna Euh, mu nekk loo xam ne day wane ne olof làkk la woo xam ni lépp a ngi ci yow yaa ko xamul wala man xamuma ko su ko defee euh, li ñuy wax mbatit muy la culture dafay jeexital ci nit nit di xalaate te loolu moo jaadu ak ni muy waxee ak ni muy doxee donc. Euh, mën nga koo wax ci tubaab tënk ni l'impact de la culture sur la nation dafa am solo daf ciy jeexital jeexital yi nag yu bare la su ko defee euh, nooteel nag dafa indi lu mu yokk ci suñu mbatiit maanaam nooteel donc dafa yokk ci suñuy mbatiit donc colonisation kon laa bëgg a wax dafa am lu mu yokk ci suñu nooteel waaye ngëm baatu ngëm nag laa wax am na yu mu indi ba tey ci suñu mbatit ah, am yoo xam ni nag li ko indi ci suñu mbatit dafa am fu mu jóge ñëw fi waaye wut am koom la kon dama wax ne nooteel am na lu mu indi ci suñu culture ngëm am na lu mu indi ci suñu culture wante wut am koom sàkku am koom dana am lu mu indi ci suñu mbatit su ma nee mbatit rek mooy culture su ko defee euh, bu ko defee yi nga xam ne civilisation indil nañu ko ñun am na ci yu baax waaye def ñëw indil yu baax dàqal ñu yu baax loolu faw ñu nangu ko am na mbaax yoo xam ne culture moo ñu ko indil dañu koy wooye civilisation mu jóge ci ay nooteel yoo xam ne ay ñoo ñu ko notoon ndax loolu tax na ci yi ci baax ay gox yu bare bari booloo tudde seen bopp réew mu ñuy wooye Sénégal ndax Sénégal bi fi kii kat bi ñëwee ni ñu koy wooye colonisateur bi dafay fekkoon kajoor bawal njaambur waalo ak feneen ak feneen waaye donte tubaab bi dafa ñëw noot ñu xeex ak suñuy maam waaye waaye waaye bu ñu fenatal fexe gi mu fexe ba ñu boole daggit daggit yooyu tudde ko réewum Sénégal ñun nag ñaare bu ñuy nettali euh, li nga xam ni mooy li weesu woon démb te ñu koy wooye histoire ci tubaab dañuy faral di kaas rek am na ñoo xam ni yi ci baaxul kese lañuy ñuy wax duñu nangoo wax yi ci baax waaye nag wax dëgg yàlla colonisation moo tax kajoor bawal njaambur waalo ak fuutaak feneen booloo doon am réew di ko wooy Sénégal beneen bi fi àdduna bi toll woon ba fi tubaab bii ñëw dafa am lu mu fi fekkoon muy mbatit mu doon daw muy jaamaar loo xeex diggante buur ak buur nañ ko nangu buur yi fi daan xeex du ci dëgg kese lañ daan xeex ngir nguuru lañ fi daan xeexe ngir yilif lañ fi daan xeexe Damel Demba Njaay day saaga dammeel mbay jóob ñu werante woote xare taal xare dammeel Demba Njaay dem lël ay nagi jàmbur ndax boobu budget amul état amul waaye kuy waajal guerre faaw nga am koom moo yor moom mooy li ñuy wax budget de guerre wala budget rek lël mooy lan dañuy yabal ay xarekat yu ñu tàggat ñu dugg ci àll bi seen sàmm bu jiital ay nagam ñu boom ko jël bakkanam wala ñu dàq ko mu daw ñu jiital gétt ga indil buur yooyu nag faw ñu xam ni fi la ko tubaab bi fekkoon kenn mënu ko fenatal waaye kon loolu tamit li ko fi jële kon nooteel ci ci la bokk waaye tubaab nag bi mu ñu indilee nooteel daf ñu indil ay jikkoom tamit te ñu koy wax euh, wutum alal quête de gain man bëgg ñépp bëgg a nekk milliardaire daf ñoo bàyyi waale loolu mu soppiloo yi ñu tàmmoon bëggatuñoo sawaratuñ ci mbay ak sàmm mu sampal ñu ay école di nu jàngal cota mbatiitam moom tubaab ñu sëgg ca di jàng nekk ay enseignant ay professeur ay docteur loolu jeexital ci suñu culture ci suñu mbatit moo ñu fàtte lenn ci suñuy cosaan maanaam suñu mbatit suñuy mbaax yar suñu doom ci euh, xale dafa war a jàng te dafa war a réussir te njàng tuuti lay joxe ci liggéey ñu jël suñu doom yépp dugal leen ci école yi ngir ñu réussir nekk dara am xaalis ay waay waay waay xool leen loolu ñu bàyyi àll ba bàyyi mbay bàyyi càmm ñëpp daw dajaloo ci ay dëkk ci ay agglomération yu xat mu nekk ay ville maanaam dundinu àll soppiku daal di indi li ñuy wax urbanisation maanaam dëkk ci ay réewu taax loolu nag indil ñu meneen mbatit maanaam beneen culture mooy lan mooy ñi jàng ëpp doole li réew mën a jox liggéey ku ci dem ba amatuloo foo liggéey wala xam ni mënuloo liggéey nga sàkk pexe moo tax nangami téeméeri junni xale ci Afrique bëgg a màng dem Europe ngir wuti xaalis loolu nag indil ñu ay jikko yu bees ci suñuy njaboot indil ñu xalaatin yu bees li ñuy wax l'élite l'intellect des pays africains maanaam ñi nga xam ne ñoo fi jàng boroom xam-xam yi euh, jël li féete kaw ci réew mooy jiite ko dal di jël koom ya séddale ko ci nim leen neexe mooy ñu tëgg lu ñuy wax état yor ko ci yorinu ku jàng ba am diplôme sàngam diplôme ba kese du tax nga falu waaye faw ñaare ci gën bari nga nekk ñoo ñu nag ñoo polluer àdduna bi les politiciens euh, partout nag man mooy wax waxuma ku ku falu rek ak kii bëgg a falu laa wax lu tax ma wax loolu ni ñuy ni ñuy politique ngir jiite dafa setul dafa xajam dafa xajamal suñu dundin ci Afrique waaye adduna bi indil ñu doy waar mooy xam nga dama la wax ni mbatit mooy fa nga jaaroon sa culture sa jaar-jaar ak jikko ya nga daan yore ak mbaax ya nga tàmmoon mu indi benn baat bu doy waar bu ñuy wax mondialisation mooy adduna bi yépp tënkuwaat ci wenn doxaliin def ay kuréel tudde ko Nations Unies wala mbootaayu xeet tëral fa ay charte yoo xam ni ci la àdduna bi war a tënku ba tënk nag suñu bopp ku beddi ku xam ku ca génn nit yaay lab rek ndax tëral nañ ko ba pare mu war a jur meneen mbatit beneen culture mondiale dafa am léegi loolu nag moo tax ba àdduna bi ni muy doxee ni muy dawee mu indil ñu yu bees yu bare baree bare yoo xam ni lu mu indi ci njariñ teg na ca wet ga yàq bu na toll wala bu ko ëpp ndax loolu moo indi ki bëgg a dund te bayatul dafa jàngoon ba am diplôme bu amul liggéey nit su amul liggéey faw mu sàkke pexe la ko gën a jege lu koy jox dund dana ko def bu dee sàcc bu dee banditisme bu dee tappale bu dee li ñuy wax tripatouillage te politiciens yëpp di ko def ci Afrique dans le monde sax laay wax ndax waga jaane ak wax lu dul dëgg ak waxin waa defin wa jur yu bare xam-xam nag yokku xam-xam tamit xel wi muy daw maanaam vitesse bi muy daw indil ñu ci jamono bu nekk loo xam ni du la xaar dalay tàllal loxo fël signal ni la dem naa soo ko toppee jafandu mu yóbbaale la soo ko bàyyee surux ndax ma nga riir ñëpp topp ko jàpp ca loolu mooy wax mooy lan technologie moderne loolu indi ci gëstu ak xam-xam xam-xam dem bay nasaxal li ñuy wax la bio diversité mooy nature bi wutum gain tax nit ñi yàq àll bi taal garab yi ak ñàkk xam-xam ak réer ba mbay dematul ni mu waroon demee et monté day fii ci Afrique li gën a yomb lañu am maanaam li gën a jafe la ñu am di wët dañ ko dañ ko bàyyi fii li gën a li gën a yomb ngir am koom laa bëgg a wax dañ ko fee bàyyi di wuti li gën a jafe te mooy àll bu ni ñareet ndox yi di daw loolu amul menn réewum tubaab mu mu am ñu ne ci coono wala fitna mbay kese kese mën naa yor lépp ci àdduna bi du laaj du xam-xam bu xóot sax xam nga lu tax këyit doxalinu àdduna moo la ko indil tubaab moo la indil aw këyit ne la xaalis la nangam la dafa laa fekkoon nga yor say ginaar say bëy say xar di bay say tool tëgg bi di tëgg ëlléer bi baykat bi yëkkati dugub jox ko sàmmkat bi indi bëy nga tibb gerte ak dugub jox ko mu jox la bëy jaaykatu ginaar bi bu ngeen tasee da ngeen di wecce ñun li ñuy nekk nekk ndaw par rapport ak mag ñu jëkk ña fekke nañu gagale am soow kiy jaay soow sax du xaalis nga koy jox day yenu soow mi ñëw taaj moom bu nawetee day xente sàmm ay juram waaye loolu daf daan préserver la foore maanaam daf daan sàmm àll bi su ñëwee tegal la soow nattal la nangami koo gi soow nga nattal ko àndaaru dugub mu dem xaalis amu fa woon ñu dem moom yàgg ñu tàmbali naan ñun ci ay xor ndax fii xor moo fi jëkk nekk xaalis waaye foofa la ko tàmbalee yàqu mbir ya ndax xor kenn du ko lekk kenn du ko wanaasu dee su ko naan tubaab bi ñëw na xool ñu moom ginnaaw ay ngànnaay la am ak ay machine te yooyu kenn du ko lekk mu fexe ba sos ci àdduna li ñuy wax xaalis xaalis boobu mu wutal ko ay sart tëral ko ba ñëpp nangu cee tënku mu indi la aw këyit ak weñ <laughs> fekk nga jal sa gerte ak sa dugub mu jëndee ko na mu ko neexee seet loolu nag di mbatit moo xam ni moom la ñuy wax une culture mondiale dafa am léegi mooy doxalin wu bees waaye doxalin woowu juraat lu ñuy wax médiatisation télévision ñëw internet ñëw oto gën a yokk roplaan foo bëgg a dem ci àdduna bi mën faa dem léegi internet nag indi lu catastrophique ci dundu doomu aadama te mooy ñi ko yor dal di jël xaalis boo xam ne kenn xamul nu mu day di ko récolter ci nit ñi xaalis boobu nag nekk loo xam ni ku nekk danga nga caa bëgg a am waaye àdduna bi tënku ci buum goo xam ni àdduna bi kenn mënatu rëcc ci yi ma fi lim mooy une nouvelle culture mondiale mooy mbatit moo xam ne na ca xale américain ba tënkoo chinois ba tënku ci wolof bi bu jaarul ca yoon woow day tardé ndax fa ñuy décider euh, la la yóbbu mooy xam-xam ak machine waaye li lay fal ba nga bokk ca ñay décider mooy jaar ci mbedd mi di tappale di wax nit ñi ngir ñu gëm la ngir fal la ba fal jaral nit mu jaay bakkanam ngir falu waaye ba ba ñu dem ba ñuy nax ay nit ci lu dul dëgg te dëggu yàlla ne fi su ko defee kenn ku nekk jóg di wax ngir falu te boo faloo nag mënoo jox ñépp lañu soxla ñu def politik wutukaayu xaalis mu jar la sax fay ay nit ngir ñuy def loo xam ni dara du ci dëgg du ci yoon kon xam nga dama ngi ci woon ci mbatit ak culture wax ne gëm am na ci lu mu soppi ci suñu mbatit suñu culture waaye gëm yàlla sax dugg si na bi mu duggee ab yonent indi ko bu ñuy wax muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu law ba ñëw fi nga gis koo xam ni dafa gëm yàlla gëm xërëm gëm ay xuraafaatam ay yu kenn xamul mooy lu ne rekk nga nga nga bëgg caa cof tuuti boole ko te doo ko teg ci lu ñu segg su ko defee gëm yàlla gëm ay xërëm andi ci wutum xaalis wutum gain nit ki taxaw di wax loo xam ni dara du ci dëgg te bis bu nekk mu toog ci télévision di ko wax ngir wut xaalis xam naa lii mën naa lii mën naa lii ay jibar ay leneen ku nekk ak na nga bëgg a def ngir dund ma xam dara nga xam ko ma ëpp law làmmiñ gëm loola ca lanu bokk ma ak yow loo xam ne yow xamu ko gisoo ko waaye maa wax ci ay pexe rek ba nga gëm loola te amut nga ñëw ci réew mu ñuy wax senegal mu amoon ay cinéma bi nekkee xale di seetaan film indu nga gis koo xam ne la mu daan seetaan ci film indu ba daf ko def dafa dugg ci mbat itam mu jàpp ni Inde dañoo bari xam-xam ndax daan na gis ñu sànni lu mel ni jaan mu soppi ku picc wala ñu sànni dara mu nekk nangam te xamul ni loolu simple trucage la du ñeengo du xam-xam waaye moom mu jàpp ni loolu xam-xam bu xóot la mu naan oh Inde moo bari xam-xam déglul bu baax li may wax ba loolu jur ci yow nga gëm ni Inde dafa bari xam-xam te Inde ci réew yi gën a ñàkk ci àdduna booy wër ñi gën a ñàkk ci àdduna bi ñu ci ëpp ñu nga indu man maa la ko wax ñoo xam ni kaña la ñuy dunde ak ay jinax ndax ñàkk ñu gëm loola ni ñooñ dañoo am alal ngir ci wutum gain rek nga gis ku taxaw toog ci télévision génnee benn mbir naan la bii jaaro de indu lay jóge ngir nga gëm ko ndax bu la ni woon euh, mu nga jóge bijam yamar maar <laughs> danga naan ah man jaaro bijam gëmuma ko ndax ñun nag bokk na ci lu ñu gën a sonal dañoo dem ba suñu mbatit wóolootuñu ko lépp lu la jege danga koy xeeb lu la sore nga yaakaar ko naw ko waa ji gëm loolu ni la indi dafa bari xam nan la jaaro bi ind lañ koy joxe toog ci télé wax a wax wax ba géex nga ñu mu dóor la ay million nga wax mu bëgg la gëmloo ni la xam-xam boobu lu wér la waaye soo demoon tey indo indo am na ñuy jaamu kaña li ma lay wax nii na ko na ko seet vérifier ndax yi ma doon wax dafa am yoo xam ne ci àdduna lu la jaaxal boo fa demee dana ko wax ci internet bi da ko gis am na lu ñuy wax temple des rats jaamu kaña laa wax jaamu kaña googu ay at mu nekk nangami téeméeri junni touriste ñoo fay dem ngir gisal loolu seen bët ndax gëmuñu ko ñu tabaxal kaña yi lu mel ni ab château kaña yi fees kaña yu weex tàll am na fa boo gisee naan maj maj maj ñuy dundal kaña yi foofu kenn ñi mu faa laal kaña di leen dundal mu am ñu ay ind yu gëm ni loolu mbir la jàppe kaña yàlla di ci méngale seen ñaan ak seen yéene kuy bëgg a takk jabar sax dem ca temple ba di ñaan ci barke kaña yi xalaat leen loolu bu baax dafa am lu lu ni fànn lu làqutu ci loolu te nit ñi bàyyiwuñ ko xel ñu fay liggéey di dundal loolu ngir bañ mu rëcc fa leen teg di leen fay weer ñu nekk ay embauché ñooñu duñu la mas wax luy yàq loolu ñoo fay nekk ci kaña yi boo ñëwee ñu lay yi naan la kaña boo defee nii ñun lii lañu ñu gëm adduna bi nag dañ kumpa tax ñi ko gëmul dañ fay dem ngir xool waaye loolu nekk ci li may wax gain xaalis réewum Inde xam ne loolu da koy dugalal ay millions yu baree bare at mu nekk kon kay du arrêté loolu xam nga boo toogoon tey ñun la ci Sénégal wala ci Amérique koo xam ne mosul dégg loolu nga ne ko Inde day am na temple des rats foo xam ne dañ fay jaamu ay kaña kenn du leen rey kuy waaj a takk jabar ku am soxla am na nangami junni nit yu gëm loolu ci biir Inde di fa ñëw di ziyaar su ko defee yooyu nag boo ko bàyyee xel daf lay wax loo ne la yow mi xam kaña fii ci senegal xam ne kaña amul njariñ nga gis ci àdduna bi kuy jaamu kaña nga xam ne àdduna bi nag doy na waar xam naa su ko defee li ñuy wax rek mooy euh, léeb jot na xam naa ñu dem régi ñëw rek duggal leen ci léeb bi door a ñëw wéyal émission bi doom daw delloo doxante yi ni ko waxoon rek ñu ngi dugg ci léeb bi léegi ah, seen léebu tey wi nga xam ni léeb bu ñu war a tàmbali tey la mbokk yi léeboon lippoon amoon na fi daan na fi am mbokk yi dafa amoon ci jamono ju yàgg ci benn àll bukki bu doon doxantu di dox ci àll bi ba mu yàgg mu fekk gaynde tëdd jaaxaan di nelaw weñ yi di ko biiw mu nelaw ba siiñ sell ya di feeñ bukki di waaxu ba jub ko daal di taxaw daal di yundulu yër ko siggiwaat daldi di ci gémmiñam ni ay waay ay waay buur bu mag ba dee na waay njaay gaynde kii de ngi dee ba jaaxaan ni ŋoññi siiñ ay bëñam weyi dellu ay waay waay waay waay dee fàdd na ku mën a rey xamoon nga ni yow gaynde bis bii danga ko am dee fekk na la ci sa doole fàdd la rey la ay waay yal na askanu gaynde yépp toskare dee alku bukki daal waaxu ñëw xool gaynde yër ko yëraat ko daal ni ay waay bib àdduna àdduna day jeex na takk léegi nag amatul ci àll bi ku yilif ak ku ñuy yilif ndax buuru àll dee na wante bukki di xool gaynde ba mu yàgg mu ne ah xaaral ma ñëw man kii ni ma ko gisee mu tëdd nii jaaxaan dee ba noppi léegi nag man dama gis ni moom lan moo waroon na tax ba ma di ko ragal man gaynde ëppale wu ma dara sax xaaral ma tëdd tale say samay cër ak ay cëram bukki dal di ni ñaree tëdd ci wetu gaynde yëkkati ay tànkam tollale ko yu gaynde bopp ba tolloo dënn ba tolloo tànk ya tolloo geen ya dend tolloo bukki ni ñokket taxaw tim ko ni ay waay man maa ñàkk fayda waay waaw man ndekete kii su ma ko gisaan rek fëx daw ragal ko ndeke gaynde ëppalewu dara tus ceey waay loolu nag jeex na bis ni ki tey tey eh yow yàlla yow miy rey dama lay ñaan nga dekkal ko léegi léegi ma wan ko ni ko ragalatuma ko tiitatuma ko gis nga bu gaynde dekki woon tey ma jàkkaarloog moom danaa ko wan ni faalewuma la lu ma wax ma delloo ko ko gis nga bu ne yuuxu damay jàkkaarloog moom ni ko yi mu tiit bay pat pati ba ay rangooñam di génn ñaq wi wër ko waay yow man lan moo war a tax ma ragal gaynde waay bukkitiim gaynde di waxtu ba mu yàgg mu ne ah cëm waaye nag dee na daal di ni ko wowal koŋ foofu wala nga nëb sax yi lekk la man maa ngi dem waaye mbokk yi bukki ni ñaadam ñaadam ñaadam ñaadam gaynde ni xifeet fudd ni ko eh bukki bukki ni wëlbat ni ko gees taxaw gaynde ni ko waaye yow bukki fan nga nekkoon ci suba tey ba rootaloo ma ndox ca déeg ba ma sangu ana doon def bukki ni tekk ni ko ni ko yow day gaynde yëgatoo lu àll bi riir àll bi amatul buur de buur amatu fi jaam amu fi gaynde ni ko bukki wax jooju ngay wax kan moo ko tëral ci àll bi bukki ni ko ay gaynde xanaa xamuloo ni yow maa ñaan nga dekki da ngaa dee woon sama ñaan gi moo la dekkal ragalatuma la faalewuma la ëpp loo ma dënn sutuloo ma ay tànk ëppuloo ma doole surtout loo ma ay sell loo ma wax ma delloo la ko gaynde ko bukki man mësuma dee bi nga ma taxawoo tiim ma di wax li nga wax lépp dégg naa ko xas nga ma moolu nga ma ñaanal la sax toskare sama xeet lépp dugg ci sama nopp waaye nag man bokkumaak yow ndax man buur laa waaye dama gore te du ma wor du ma tooñ su fekkoon ni dañ ma nettali yaa wax ni yaa wax rekk te dégguma ko du ma masa dal ci kaw waaye man gaynde dinaa la wan ni la ginnaaw li nga wax yaa ko wax mu dugg sama nopp bi dinaa la yar dinaa la duma danaa la wan ni maa la man fuuf dal ni ko bukki dëggalal sa bopp nga taxaw te nga dër ci sa kaw laa jëm nag bukki daal di taxaw rëpp ay ñaari tànkam dër di xaar gaynde gaynde ni bërët taxaw daal di dellu ginnaaw ñeenti jéego ni bërët ni dell ci kaw bukki fàdd ko bukki daanu xalanku daanu wëlbatikuwaat jaxasoo dugg ca geer ga jóg taxaw daanu jógaat taxaw sa gën a goqi lu ñuul kukku la goqi foofu naka mu siggi di bëgg wax gaynde këf ko rek fadd ko rek xalab ko ci geneen garab mu dal ca taatu garab ga wëndeeluwaat direeku siggiwaat rëpp ñaari tànk ya dal di goqiwaat foofa lu ñuul kukk gaynde ni ñaadam ñaadam ak si ñoom jël ko ni ko xër sànni mu wëndeelu ci kaw daanu ci ay taxas ni janjang ca gannaaw ni nërëm ci suuf ni ay waay ay ay waay gaynde déglul ma wax la dañ maa nettali rek xaw ma woon ni liñ ma wax ci yow du dëgg dañ ma jaxaseeg yow rek seytaane moo dugg suñ diggante gaynde ni ko bukki ndax man ngaa dem ci déeg ba rootali ma ma sangu wala déet bëgg ni ko waaw koy njaay ay waay njaay bu dee sangu kese kese nga bëgg fii yow kese yaa fi buur te dinaa la rootali njaay demal tëdd ndax yaay sama buur maa di sab jaam mbokk yi fii lañu koy yemale ba beneen yoon ñu àggaleen leen léeb wow ñu dem rëcc del suwaat bam waaw bu ko defee mbokk yi ñu dellu siwaat ak yéen rek ginnaaw bu ñu leeboo léeb woowu am solo woowu euh, muy lu am solo ñu fàttali leen rek euh, cax wi nga xam ne caxoon nañ leen ko daal di ubbi téléphone bi ñu war a jokkoo mooy caxu tey wi mooy ndundu war ci ndee ndee war ci ndundu loolu mooy lan euh, bu ko defee nag baat bi ci topp ab proverbe la maanaam léebu la ci olof olof dafay faral di wax ni picc mi nekk ci loxo xale bi warul reetaan picc mi teg ci taal bi di ko lakk ana lan ngeen déggee foofu ñetteelu laaj bi xoddiku mooy lan xoddiku ñeenteelu laaj bi mooy laa sim laa sim ci tubaab lan la ci wolof su ko defee nag léeb bi euh, ku ci mën a woote wax ci tamit noo ko déggee rek euh, nga wax lan nga ci dégg ba fii mu toll 88 628 66 92 waaw su ko defee mbokk yi ñi ngi nuyu rek mbokki fan si club Mourchid TV euh, di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal ci taxawaay yu am solo yi euh, di nuyu suñu xar yi nga xam ne xañ na sax amuñu jotu tudd leen wala dañ leen di fàtte di nuyu suñu mbokk artistes comédiens yi nga xam ne dañoo jóge ci bis bu rëy muy journée mondiale du théâtre yàlla def démb sax ñu koy yendu du Douta Seck ak euh, tout les ténors du théâtre sénégalais muy tous les arcos ak ay bindkat yu mag yu ne Sénégal euh, di jiital ci nuyoo bi Seydou Sow ak colonel Momar Gueye suma xarit ak mboolem ñi nga xam ne dañuy jëngu ci wàllu culture fii ci euh, senegal euh, di nuyu ñoom Leyti Fall arco Pikine arco Guédiawaye waaye di nuyu arco yëpp ci Sénégal su ko defee rek ubbi nañu téléphone bi fas yéene jàkkaarloog yen ku am lu muy tontu ci laaj yi rek 88 628 66 et 92. waaw mbokk yi su ko defee rek xam ngeen ni tey euh, li ñu ubbi woon di ci wax mooy solo bi nga xam ni mbatit daf ko am di ko jeexital ci nit te ñu koy wax culture te ñu duggoon ci sànq wax ci yu baree baree bare ba wane ni doomu aadama mbatitam maanaam culture am yi ci intervenir dafa bari maanaam impact bi am ci culture doomu adama colonisation ci la bokk ngëm-ngëm ci la bokk waaye wut am koom sax dana façonne culture doomu aadama waaye ma woon ci baat yu bari wax rek ni fii ñu toll sax bu la neexoo nga wax une culture mondiale culture boo xam ne doo ko jagleel tubaab bi wala ku ñuul waaye àdduna bi yëpp ñoo ko bokkule waaye nag euh, man de li ma ci seetlu jëmul kër ndax mooy baatub tous les moyens sont bons pour réussir lañ ci jublu maanaam nu waaye def ba jàll rek baax na bokk na ci li yàqu àdduna mooy loolu mooy ki bëgg a falu nu mu def ba falu rek baax na yoon newu ci ki falu fasul yéene wàcc lu mu def ba toog baax na te ak pal nag ñi koy xëccoo ñépp gain rek moo leen animé yi ci gën a bari mooy nan laay def ba bu ma nekkee lii am lii nun ñi lay toppit ñaari ñi ëpp ci ñun mooy bu dem ba Njaay faloo man moom sama mbir dana réglé ndax diw xam naa ko te bu boobaa dana fal diw nangam diw def nangam ma def nangam mooy culture bi ñuy dawal ci àdduna bi ma wax ni ñuy jëfandikoo lu ñuy wax fausse information intox anglais di ko wax fausse news euh, fake news di moins waaye ci wolof mën na tudd sax waga jaane mën na tudd wax ay nar mën na tudd ay sos mooy man bu may wax lépp lu may wax yaakaar ni su ma ko waxee yow mi may waxal da ma gëm danaa ko wax soxlawu ma mu nekk dëgg soxlawu ma mu jaadu bu ma taxawee sax ni la gëm naa yàlla ni la jullit laa wala nangam laa bu wax ñëwee moom day mel ni yooyu dama koy teg fële ba pare damay summi sama mbubbum ragal yàlla teg fale summi sama mbubbum gëm yàlla teg fale waaye xool teg sama bët sama intérêt ak samay wax ba tax nag su may wax li may wax ngir nit ñi gëm ko ngir fal ma wala ñu jàppale ma soxlaw ma mu nekk dëgg de naa ko sànni ci internet bi rek ku ne jël di wax man mi bañ a ci ngir faloog man mi waaj yéeg ak man mi par parloo ci biir ñooñu man nag maa koy animé maay topp man mi ñuy woy ab militant de base maay ne ci suuf di ràbb rek di wax rek di wër di taqale di saaga ku ne ma waxal ko loo xam ni dama jàpp ni su ma ko waxee rek du baax gëmm nag samay bët ki ma àndal daal lu mu wax moom dëgg la waaye ki ma contre lu mu wax fen la foofu rek bu ñu fi taxawoon danañ gis ne li may wooye une culture mondiale mooy mbatit mi nga xam ne ñu ngi koy nandal leen nit ñi ci àdduna bi foofu rek la jëm multinationale yi dul état nga xam ne ñoo yor koom bi ñoo yor koom bi ñoo bari xaalis tappale nañu ba yépp di gën a daje ci seeni loxo bu ko defee mbirum mbay sax léegi boo koy def jiw wi ñu lay jaay dañuy fexe ba bis bu ne ma di ko wax nag loolu du ma ci tàyyi di wax jiwu day cher lool ñu ngi fexe ndànk-ndànk di rekki jiw ci nit ñi nga xam ne di ko mu neex rek gis jiw wala nga am ko te réussir nañ ci lu bari ba ay nit di xaru ci àdduna bi ndax loolu mooy mboolem xeeti gàncax yi meññ yi ci ëpp fexe nañ ba jiw wi yow mënatoo koo am ay waay moonte day bi ñu nekkee xale yàggul ba bërki démb sax jeexagul ba léegi sax mu ngi fi des na tuuti mooy garab gi nga ji mu sax meññ su doom ba màggee boo ko tojee wala nga xar ko doom ba ci biir boo ko jiwaatee ma sox loolu am na de waaye ñu ngi koy wàññi bu baax ba yi gën a am njariñ ak euh, yi gën a mën a indi xaalis ci àdduna bi soo koy bay fexe nañu ba jiwu wa benn multinational moo koy yor moo la koy jaay papayo su ma koy wax rek sama xel day dem ci pàppaayo man na ku bëgg papayo la ndeysaan di leen xool papayo ci dëkk bi léegi dangay xar doomu papayo doo fekk sax ci biir ay doom seetlu leen loolu wala xaal wala doom ya ngay fekk ci biir boo ko jiwaatoon di sax ndax fexe nañu ba meññeef meññeet yu bari jaasir li ñuy wax stérilisation yéen ma doon wax sànq rek xam-xam yu xereñ yu bari yi nga xam ne borom nit yu xereñ yi sos nañu ay xam-xam yoo xam ne su ñu jëlee meññetu garab meññet moomu mën nañoo fexe ba rékki la daan tax muy sax fexe ba doom bi jaasir nga xam ne doom bi bu ko bu ñoroon bu meññoon ba pepp mi ne ci biir ñu koy wax graine wala jiw yow boo ko jëndee loolu du la amal benn njariñ boo soxlawaatee jiw da ngay dem fekk borom alal ya paqueté ko ci ay paquet di ko jaayee lu bari ñu bari nag dañoo defee ni loolu doole la ju état yor nii ak état am na loo xam ne dépassé nag seex yenn état léegi réew yu mag yi boo demee Amérique baykat yi dañ koy kaas boo demee Europe baykat yi dañuy kaas dañ naan ñun mbay dong lañu yaakaar te amuñu doole waaye dañoo gis ni lépp lu ñuy bay les multinationales industrielles yi nangu nañu ko di ñu ko jaayee lu jafe jiw ba pare indi ay xeetu jaayin yoo xam ne ñun mënuñ ci dara kon koom-koom dafa daw jëm ci ay groupe buñ la waxee ñi yor internet bis bu nekk li ñuy drainer ci ay milliards da ngay tiit doo xam sax lu ñuy doy xaalis bi dangay dem ba mu yàgg nga naan ndax duñu mës a egg foo xam ni dañuy far rek jox leen àdduna bi ñoom ñu koy doxal ni ñu ko bëggee 88 628 mbokk yi caxu tey wi mooy ndund war ci ndee ndee war ci ndund mooy caxu tey wi euh, wolof di wax tamit ne picc mi nekk ci loxo xale bi warul leetaan picc ma ca taal ba ma ñu teg di ko lakk looy déggee foofu xoddiku mooy lan ci wolof ñeenteelu laaj bi laa sim baatu tubaab la laa sim E, la A la CIM mooy lan ci wolof yow mi ko xam 88 628 66 et 92 bu ko defee yow mi doon déglu léeb wi euh, nga woote rek ci 88 628 66 et 92 mbokk yi su ko defee xam naa ni suñu heure bi nga xam ne dañ koo changé mënul ñàkk a jeexital ci émission bi ndax ñu bari bàyyiwuñ xel ne koor gi moo tax ñu gën a wàccee. waxtu wi waaye du tee nag dañ koy def rek incha allah 88 628 66 et 92 su ko defee rek <coughs> mu ñëwaat ci ay baat yoo xam ne euh, baat yu am solo la euh, baat boo xam ni euh, li ma ciy faral di wax bari na waaye bis bu ne ma dégg ko mun naa wax ni bis bu ne ma déggaat ku koy wax di ko damm te ki koy damm ci rajo lay nekk nekk journaliste wala animateur wala mu nekk conférencier mën na nekk kilifa ci fànn yëpp nag waaye ñàkkal solo gu ñàkkal solo suñu làkk bokk na ci lu ñu taxa ñàkk yu bari ci suñuy mbaax te li ñuy xeeb di dem baat yi ci télévision yi ak rajo ci la bokk euh, xam nga xamante ni bis bu ne wax ci du ma ci sonn waaye <laughs> dama cee dégg benn boo xam saa yoo xamante <laughs> cee tët mën ngeen a dégg wolof yu dëngee noonu saa yoo xamante ne waay waay waay saa yoo xamee ni kañ la fi dee li ko rey saa yoo xamante ne saa yoo xamee ni te wax naa leen ni tani boobu ñu yokk ci xam bokk ci lu bees la xam kese la xam ni kese la wolof di wax xamante ni amul ci wolof xamante waay waay waay amul ci wolof xam ni rek boo mbooleem yéen ñi wax xamante ni déglu leen bu baax baat bi may wax foo waxee ba ni xamante ni rek ah jàppal ni keroog damm nga baat wolof xam ni rek nga waroo waroon a wax mooy bis boo xam ni wax joo xam ni nit koo xam ni waaye nag saa yoo xamee ni saa yoo gisee ni waaye saa yoo xamante ne ay waay loolu ëpp na nag ndeysaan maa ngi nuyuwaat colonel Momar Gueye di ko yokkal sargal ci liggéeyam bu rëy boobu mu def am na wax ju am solo démb ñi ngi waxtaan mu di ma ko wax rek euh, mu am ay enregistrement yu yor ci baatu xamante ne boobu te mu nekk loo xam ni euh, wax dëgg yàlla dafa nekk loo xam ni daf ñu sonal ndax damm googu ñu damm suñu làkk wi ku mu neex nga waxe ko nu mu la neexee dafa wàññi lu bare bare bare ci suñuy mbaax ndax baat bu nekk am na lu mu àndaloon euh, démb rek déggaat naa baat boo xam ne dama ci daan wax gëj naa ci wax nag waaye dafa am nit koo xam ni su waxee ñëpp dégg ko mu wax baat bi baat bi damm otof yu metti la te mooy euh, wokkutu ba dajee gestu loolu du ay wolof de wolof yu ñu yàq la waaw loolu de moom wakkutu ba dajee gestu loolu ay wolof de wakk wakk ba dajee gestu waaye xam naa ne nag yow xale bi may déglu xamoo luy wakk wakk mu ee nga wax e, nga wakk ko dangaa bañ ni e ñu dégg la nga ni ko wakk mooy ngay woo ak sa loxo wolof ni aa ah, lii de wakk bu dajee gestu la déglu leen sensu wax bi wakk mooy man dama doon dama la doon woote bugguma wax ñu di ma dégg dafa am lu tax ma naan far nga geestu ñu ne wakk la bu tajee geestu man dama doon wakk far nga geestu koy lool loolu koy dama arrangé waaw wokkutu ba dajee geestu ban sens la am wokkutu ak geestu ban sens naan wokkutu ba dajee geestu la loolu de moom wokkutu ba dajee geestu <laughs> waaw su ko defee muy baat boo xam ni mënuñ ci ñàkk a wax euh, di ko fàttali ma déggaat fi ñu ko waxee di buum di mi bés bu ne ñu wax ko ci télé ak rajo di buum di bummi du ay wolof buur la ñuy wax buur c'est le roi bummi c'est le prince pour mu gàtt naa ko gàttal noonu rek wolofologue yi nañ ma comprendre buur mooy roi bummi c'est le prince héritier bokk ndax dégg ngeen wax ji buur c'est le roi bummi c'est le prince héritier ñu ne nag tu n'es ni le roi ni le prince héritier yow nag doo buur doo bummi ça n'a rien a bar ak cordeau ay waa ji waaw su ko defee rek ah di sant ak di gërëm mbokki téléspectateurs yi ñu doon seetaan ndax li ñu desee ci waxtu bariwul di fàttali rek tënk bi ñu indi woon waxla la juñ sumb ju rëy joo xam ne jeexagul sax euh, ndax fu am solo la mooy mbatit na ngeen ko jàpp une culture mondiale ki se développe waaye nag dañ ko banse ci ay gain ak ay pouvoir rek loolu nañ ci bàyyi xel bu baax àdduna bi di ko gën a yàq mooy nguur ak alal ku ne bëgg a falu ak kilifteef ku ne bëgg a am alal nekk multimilliardaire te booba àdduna yi tukki ñii dañu am ñi ñàkk rek ñun nag wax dëgg yàlla bàyyi bàyyiwuñu xel loolu ñu Afrique ñun ñoo am lépp bàyyi ko fi di wëri leneen lu amut mooy àll bu ni ñaret ak ay garab ndox yi di daw dawaan loolu nag ñëpp a ngi ci waaw boo waxee boo daane rek ñun loolu de Demba Ndiaye ko moom kenn moom ko yéen ñëpp yow mii falu yaa ci jiitu yow mii waa ji yéeg ci nga bokk boo yéegee six mois ñu saaga la naan waaye yow kii moo fi taxawoon di wax lii waaw lu ay vaar rek fii ko fi falu bii daa am nga problème daañ la vaar a vaar ba nga bëgg a geddu nguur gi ndax lu ne wax nga ko ngir falu mbokk si <laughs> téléspectateurs yi su ko defee rek euh, xam naa du ñu tekki dara la ñu taxawoon tey dañ koy bàyyiwaat ba bii di ñëw parce que xam nañ temps bi ñu changé il faut mu am impact ci ñu war a woote téléphone incha allah maanaam sax émission bii di ñëw midi 30 lañ koy def fii moom la ñu ma wax ndax koor gi su ko defee euh, ñu gërëmaat ñi nga xam ne mooy fans club bu Mourchid TV ak suñuy partenaire euh, di wax rek ni yow mi soxla sama numéro jëlal 77 043 81 et 08 su ko defee émission bi bu yëwanee nag dafa am mbokk yi ne ci ginnaaw caméra bi te mooy Maymuna Gueye Mapenda Dia Ousmane Ndiaye Thierno Dianka waaye Ngagne Diop Matar Gueye eh, ak ki nga xam ne mooy El Hadj Fall le caméraman waaye tamit Moussa Bane mi nga xam ne moo doon yéwanal son bi mbokki téléspectateurs yi ñoo ngi leen di ñaanal ndogu jàmm eh, di leen wax ne eh, alal bii di ñëw incha allah fii ci Mourchid TV la chaîne de valeur daañu fa de midi 30 pour def émission Càllu Weer down their love.